ci sama mbokku téléspectateur ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jàmm moo di spécial màggalu Kazu Rajab màggalu Kazu Rajab bi nag tey dañoo dugg biir Pikine tubaarikàlla daal di ñëw ci màggalu Serigne Fallou bi ko ko aaye nag tubaarikàlla kenn dootu ko présenté ci biir réew Yaay Fall ñu koy wax nag waaye Serigne Fallou ñu koy wax nag Mame Ndiaye Savon tey nag waa Leral TV bi daal di ñëw fi nga xamante ni moom moo di Pikine donc tey ji màggal gi nag da leen baax a baax di wax ne man si saaram boole ma topp di ngeen dégg waaye bu ma toppee di ngeen gis Touba ak topp ma ma diree tubaarkàlla waaye Serigne Fallou baa ngi nii tubaarkàlla ay ca tubaarkàlla macha allah mi ngi noonu yirim ay borom bi ay de yirim damaa bëgg nga koy diri tubaarkàlla di ko jër xam nga def yaay Fall dafa jongo ma su ndaw duñu yëkkat déedéet ñun du n'importe qui moo nuy gis déedéet parce que suñ génnee rek dafa am lu ñu génnee tubaarkàlla macha allah borom kër gi di daam jeng bëgg allah ji fallu lool tubaarkàlla macha allah waaye ki bëgg nuyu nag kenn du ko présenté mim réew ndax lu waay gàtt yéegi dégg gis nga yaay maam Ndiaye Saye mbaa yaa am jàmm ñooy sant yàlla bu baax alhamdulilah waaw euh, donc tey sa bisu doom ji la ci euh, am ay kàddu ci mën a sànni rek ci contentement ak mbégte gu yaatu di sant yàlla bu baax a baax rek julli ci sang-sang yi ñaanal sama di sant sama waajur yi kontaan trop ci bis bi barke Seydina Mohamed bis bi jomb ko ndax day xale bu baax xale bu gën xale bu bëgg yaayam xale bu teral baayam maam Ndiaye yaayam rek ko saf keneen ñor ko barke Seydina Mohamed kon nag bisam bi jomb ko ndax daa teral ndeyam moo tax du mu am rek jomb ko ayca lu ma am rek jomm ko yaay boy yow soo déggee sa doom nekk ci yenn euh, maanaam yenn détails yi en tant que maman noo ko dundee. ah dinaa am naqar waaye du naqar du ma metti daal parce que damaa xam maam Ndiaye xale bu am jom xale bu am fulla xale bu respecté ñëpp xale bu tegu ci temps barke Seydina Mouhamed liñ koy waxal nit ñi dañuy wax rek waaye mosuñoo gis preuve. ndax mu dalee wax ne ko am sama na ko génne ba léegi gisoo kenn génne preuve wax ju ñaaw na dëkkul fa mu jëm fa mu jóge la cosaanoo ñu sant yàlla bu baax a baax barke Seydina Muhammad ca kaw ca kanam rek ay ca kaw ca baax loolu la yaay maam Ndiaye Savon wax waaye di nga ko yaay booy bu doon laaj ci maam Ndiaye Savon dëgg-dëgg ñaar laa lay laaj lan na la mës a defal ci loo xamante ne kontaan nga ak li a métti ci moom bu soñoon tey nga ba maam bëggul sax man ma na naqar barke Seydina Muhammad su ma meree tëdd sax ma tëdd sama dama yaay lan bëggul dara lu ma metti si lu ma neex rek lay dox barke Seydina Mohamed bëggul dara lu ma metti macha allah ma koy sant nag barke Seydina Mohamed su may wax si moom sax du ma doyal daal yooyu doom ju baax doom ju bëgg yaayam doom ju gërëm ndayam maam dafa teral yaayam dafa sigil ndayam loolu kontaan nga ci daal barke Seydina am pikin gi ma sonnee woon fii la ma sigilee ñi ma fi xeeboon ñëpp tey gàcce gaalaama tey ñoo ñëw ci bis bi kontaan bay bëgg a dee billaahi jëlal ma tas tase boobu xoolal ma tase boobu fa tubaarikàlla macha allah diggante maam Ndiaye Savon ak mami Cobra ah. mami Cobra bàyyeekoo Thiès benn dëkk ñaari gaar hmm. jël autoroute à péage bi ah. ñu ne ko fan nga jëm mu ne Pikine laa jëm ñu ne ko koy wuy ji mu ne maam Ndiaye Savon lay maam Ndiaye Savon taalibe Serigne Fallou yaakaar naa ne xew mi nag dafay soog a tàmbali rek ana xiinkat yi. ana ñiy jàppal Mourtala Mbaye nee na jóge si ndax bu Mohamed paree rek dama bëgg nag ñu daal di dugg. waaye ngor moo ko fi bàyyi. ndax nit ñi dañoo mën a wax. tey bu toogee ñëwul dinañ ne maam Ndiaye da kaa fekki woon te moomi Cobra ñëwul te man mii du ko wax benn yoon parce que xam naa ne moom alaaji sëñ Fallou la bëgg comme ni ma bëggee sëñ Fallou te heure bi Touba la ko waroon fekk kon tey mu dagg yitteem sacrifier loolu ñëw fii damaa kontaan guy gi barki sëñ Fallou Mbacke di ko ñaanal rek billaahi wallaahi wal kitaab lu ma koo bëgg sëñ Fallou barki sëriñ Fallou Mbacke musul toog fi Kazu Rajab nee na waaye wax yu ñaaw na waaye wax yu woon nañ tey du ñëw waaye tey bu mu ñëwee daf maa sagal barki Serigne Fallou Mbacke na man xam naa ne dina ñëw ndax cofeel gi ma am ci man billaahi wallaahi yow boo woote woon àllaaxira sax barki allah ji Fallou ma fekk waaye na te ma sëñ Fallou am na ko mën na ko te defu ko waaye yaay jàmbaar nee na kon nag gisuma sëñ Fallou waaye xolam sedd na ci yow nee na gisul sëñ Fallou waaye xolam sedd na ci di sëñ Fallou di taalibe sëriñ Fallou akkan eh bëgg sëriñ Fallou sëñ Fallou rek ma ñor eh. waaye maam lii cuuni mënu ko como mënu ko te bu ko def mënee du ko defee nii nga ko defee yal na la yàlla defal jàmm yaay jàmbaar yaay gor yaay faaris te barke Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Fallou dina la fay ci diggu pénc comme ni nga ko teralee ci digg pénc damaa ñëw nag waaw ñaar fukki junni jëlal na mu sóor gi wadd amet sekk jox ko ñaar fukki junni ci Cobra sama rakk ji nga xamante ni ajaratu Assi Diop la yaayam tudd sama ji nga xam ni toogoo naan suma doon góor boo doon góor doo faj gàcce ndax ñaari loxoy takk tubéy waaye mooy takk sër nga nangoo liggéey bëri jom am personnalité ci digg réew mi nga ne dama ni yal na yàlla dolli jàmmam deux cent cinquante mille juróom fukki junni eh trois cent mille juróom benn fukki junni trois cent cinquante mille juróom ñett fukki junni quatre cent mille mami Diallo sarak ji nee na nga jënd ci ndox mu sedd ah. waaw ndox mu sedd kese ah. la la ci jënduloo ak boisson ndax yow macha law la cat faddilan li la war ci sa bis bi def nga ko bis bi mënu la barke Alaaji Fàllu Mbàkke maam Njaay ah. li ñu lay wax waruñu lu la neex mami Kobra sama rakk ji fa mu toog di maquillage la ni ma sama waa ji tëgg na bis bi na mu ko bëggee woon sëñ Fallou dugal ci loxoom yow ci kaw ci kanam doo tardé kenn du la yëram waaye Diallo Diéry sama rakk ji nii rek nga mën a mel boo ni melul ber tàkk ci sa kaw sëriñ Fallou nga doy loo as si joobay sa yaay nga njëkk a judd njëkk a baax néewoo kenn bonal doonoo taaw bu ñuy wecceeku néew néew bay laaj dolli yow doxal sa dox ba kenn laal sëriñ Fallou la def nii nga mel moo ko def maam Ndiaye moo tax ànd bi day neex kenn mënu ci dara nañu leen def nañu. ba bari loolu nag tubarkàlla nga fay bor lool nag sama waa ji. kalla bu la neexoon nag empêchement yi bari na ci réew bu la neexoon doo wuy sax rakk ji waaye nga wuy si ko ba mu ba mu bari jom waaye na ku la lebal kër guddi nga koy fay. jàllo jiri borom maam yi limaani nga ànd ak sa giwil ànd ak sa délégation tubaarikàlla ajatu maam Njaay joxoon la deux cent mille nga daal di koy ñëw jox quatre cent mille mën naa ne. ak toog ci wetam ba bëgg bi jeex sëñ Fall loo leen boole te lu saabu mënta fóot përëngal mënu ci dara. waa alaaji ajatu maam Ndiaye Savon mii nga xam ne miis dong ko jur ba say baayam mbokkum yaay Kumba Ja mbokkum yaay Sadiq mbokkum yaay Faaxawa tubaarikàlla koor ama kudd nee naa la yaay Sëriñ Fallu tubaarikàlla mooy yaay Faatu mooy yaay abi bu ndaw nee naa la tubaarikàlla muñ dëgg la ñàkk mu dëgg la fi barak bi ne woon fi la bi ne barkàllaa ji Fall loo muñ mu jeex sëñ Fall loo la defal ba léegi da ngay defaree mbokkum yaay Fanta Mbour sama waa ji nga xam ne jaal Mbuub ak jaal Caam jaal ma Cayre jaal mi neex maawo deux cent yi mën naa ne barkal quatre cent mille di moins mën naa ne waaye yaa bari jom nag ma mami yaa bëri jom nag tubarkal xanaa xamoo bu ma ko mënoon ni nga ko mëne du ma ko defee ni nga ko defi bañu ma ko sax mënu ma ko sama tension ko attul quatre cent mille ma yeggale mbaxal mi daal di lay ñoo jox mbaxal mi léegi kay gaawal yow. waay ma ne ko tubaari kàlla macha allah ah Yirim loo ci xamul Yirim sama waa gi sama waa ji gàtt ndama ngi ci ndekete maam Ndiaye Savon dafa def ñaari mana yoo xamante ni mbaxal la ràcc mu dellu ma ah, Zane Mbaye ràcc sama waa ji ràcc nu xool ba bii nag muy féete baaba doos ràcc baaba doos mbaxal gi loo ko diigalee. mbaxal mi mbaxalu naar la. ah boo. mbaxalu poyta ah, la mais mais mais mais Zale Mbaye loolu wax mbaxal ko ma. mais Zale kaani la toogee man nu ma toogee kaani. ma mbaxalee. lay toogee. man maa jëm ba sama mbaxa sama waa ji moo ma man maay Baba Doos bi maam jaay sama. waaw waaw waaw. wala ngay taxaw de. mbaax gi la loolu nga ko garmi lamal xol bu rafet dama bëgg nag sénégalais ñu xam ni fii dara amu fi li ñëpp di wax rek barke Seydina Mohamed fii dara amu fi fii ñu ñëpp ñoo far ku ku ci sa morom tooñ rek nga defante moom waaye suñu xol yi xam nañ li ci ne te man sama xol bii bu seen yëppoo sénégalais yëpp xam ne Mame Ndiaye Savon rek a ci ne barki xalifa yërim man na ko yërim Zaa dafa waxoon day yàq mbaxal gi te mbaxal gi man dama koo liggéeyante ba gis ko kon Zaa la nga yàq mbaxal kon jëlal mbaxal gi waa Zaa lan ngay wax ci sa aram ci mbaxal gi waaw kay te mbaxal bi li ci gën a neex mooy yàquma ko tubaarkaal ci booli di ko séddale ci biir cin li laa koy yàq di ko séddale ci biir cin li li ni mel wa saan mbaxal gi doo ko rosi mbaxalu payla laa woote payla bu ngeen ma lakkee de baax na mbaxalu payla lépp laam waaw fi mu nii nag euh, yërim zaala ngi yàq kon njëla yàq mu bare ñu pelloo ñu dagg wàcc waaye boobu mbaxal bu toog mana boobu mbaxal bu diig te fatt waa sëñ Bada daal léegi nag yow tey boo doon am loo xamante ne ko koy tere ci moom lan lay doon. li ma koy daal mooy na bàyyi na wàññi wax. wàññi wax waaw wax rek laa bëgg mu bàyyi ko parce am na ñenn ñoo xamante ne li ñuy wax jarut a tontu parce mbaam bu la wéqi nga wéq ko da ngay mel ne moom loolu rek laa koy tere. billaahi à part daal kontaan nga ci moom. kontaan waaw lan ngay wax Leral TV nag lan moom ca kaw ca kanam rek macha allah. tamit mu bëgg loolu maam maam donc kenn kii ñëpp ràññee nañ ko ci maam sama xarit ci loo ne jongo baa xam nga ni nag baax la. ndeysaan te bàq nga sa jongo. bilaay dëgg la. ci loo ne nekk yeneen ci jàmm baax. ngi sant bu a baax. dëgg la kay. tey sa digganteeg sa mag gi tey boo doon wax dara seen diggante lan nga ciy wax tey. sama digganteeg sama mag gi sama mag gi dafa ñoo uuf comme yaay. bañ nekkee xale ba tey li nekkul alal ji dakaa dam mu mel ak ñun nii barki Seydina Muhammad bañ nekkee xale la commencé di ñu tette bañ tool nii xamuñu kenn ku dul moom ñuy ñaan yàlla barke Alaaji Faalu Mbàkke mi mu yaakaar ci jour bi yàlla na ko sëñ Faalu wallu yàlla bu mu gis dara lu mu ragal na ko yàlla musal si lépp ci lu bon ak lépp. ci bisu maam Ndiaye savon bi boo jógee ci mbaxal bi nag damaa lakk Zane Mbaye lakk na ma keneen ki lakk na ma waaye garaawul lu ñëw na ci ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté mi ngi ci TikTok bi di ko toj ñu koy wax Philippe waa Philippe nag ana kilote bi. mu ngi ga ba bàyyi. nuyu naa la. ma la raw na mun naa waa sista Aram. Ah. tay xew nga de. bilaay gis naa la rukk dëkk bi moo mën a sëñ sa. sëñ ah? sa bànq la yaram dama ko jël de balaa ñu naan damaa mën a lekk. da ngaa mën a lekk mbaxal xam naa la nag. waaw su ma rek. maa ngi ni tey la ma waral sa teewaay ci bis bi. ah sama teewaay dara waral ko lu dul Mame Ndiaye Savon. Ah. xale bi nga xam ne nee naa day rukk dëkk bi ba mu mokk. te dara du yëg borom du yi. waaye nag li tax ma gën a ñëw mooy Zobalde xam nga Zobalde dafa bëgg Mame Ndiaye Savon te soobal sama jumeau la. ko kum bëgg la dama koy bëgg kaa bi nii la demee. moo tey ma a siif ñëw mais tey fii amul ay siif na fii ay ay tabala la. déedéet tabala la mais tabala yi mën nañ ko ràmbal rek. ana kilaat bi ñëw na. lépp laa indi. karaam bi lépp laa indi bi tax ñëw na. tey damay mbaxal laay lekk ji mbaxal. mbaxal mbaxal a gi noonu ay ca yëriñ topp ba. ci suba ci suba ay ca tubaari gàlla macha allah nee na makiyaa bi ci suba la ñu ko wax Eva mu jongo ma lool bëgg ñaan ah. ko tubaarkalla bëgg Mame Ndiaye Savon fu Mame Ndiaye di live mu toog ñun nag waa Leral bu Mame Ndiaye defee li te ñëwoon duñu ay góor ndax ñun ay taalibe Serigne Fallou nan waa Eva ci loone maa ngi rek. sant alhamdulilah sant naa mais tey ngeen def seen hôtesse yu mucc ayib tubaab yu raar yu yu noble noir et waaw idée bi fu mu jógee. ah ci gars yi rek ku ci mel ni jaara bam bi comme ñoom ñoo yoroon hôtesse yi. ndeysaan te buñu nee màggalug Serigne Fall moom. waaw lépp luñ ci def rek dañ koy xeeb. ndax ñun bëgguñu kenn gëmuñu kenn amuñu kenn ku dul Serigne Fall. dëgg la waaw Serigne Fall rek la ñuy nooyee saa bu ñu nooyee moom moom nooy gi. ginnaaw yàlla ak yeneen. ndeysaan waaw kon. waa tey nag bu loon ñëw nag euh, sa digganteeg ki nga xamante ne moo di Mame Ndiaye lan nga wax waaw kooku wax naa ci ba sool lu ma ci wax waxaat na. mais fii Leral TV dañoo bëgg lépp gën a leer. waaw moom nag sama xarit la. maam sama xarit la sama sœur la. ci benn côté sama yaay la. waaw parce que li yaay di digal doomam rek la may def loo. fi yaay di saxal doomam rek la ma nekk loo. donc kon moom sama xarit la sama lépp la may ñaan yàlla ak Alaaji Fàllu mi nga xam ne moo ñu boole ndax moom Serigne Fàlloo ma booleeg moom. ndeysaan Serigne Fàllu waaw Serigne Fàllu mi ma booleeg moom. daa mel ne man maam Ndiaye Savon li ma booleeg moom moo la booleeg moom Serigne Fàllu. Serigne Fàlloo ma booleeg moom. ndeysaan Serigne Fàllu mi ma booleeg moom nag yàlla na Serigne Fàllu téye ànd bi ndax moom gis naa ni ma téye te xam naa ci dara waaye dama koy ñaanal rek jàppul loo lii moo gën a ndaw ci li muy def mais yow boo déggee genre xeetu waxi sew yi am ci diggante tiktokers yi ñoom maanaam ay nawleem yi jaay yooyu soo déggee genre wax yi lan nga koy conseil directement amut solo àddina amut solo loolu nga koy wax àddina amut solo àddina amut solo da nga gis nit tey suba nga laajte ko ñu ne la génn na àddina donc lu des si addina bi dañu rafetal rek euh, showbiz la nag showbiz mën na lu ne waaye moom xam naa ne jàppal leen dara ñoom it jàppaluñu ko dara showbiz la rek showbiz la demee noonu waaw ñi mayante xaalis rek. mais yow fan yii lay rumeur moom yëg nga yow it. man me lan la ci man du man seetaanul dara. man seetaanul dara man dégg. yow Yérim dégg naa fan yii moom tamit daa am benn boutique de defante ne moom ci defante bi la. Eh, bàyyi génn ci yi nga nekk yoruma boutique vente en ligne laay def di ko def sama biir kër. vente en ligne damaa bëggoon a génne. ko a génne ndax xam naa ne. en ligne laay vente di ko def sama biir kër doo ma ah, dugal. yan accessoires yooyu. waaw yu rafet rek yi bébé Eva di nee naa leen maa koy sol mu rafet waaye maa leen koy jaay mu rafet tubaarikàlla loo bëgg am mais yow defante woo kenn daal day eh, man amul defante ndax xale nga waaw bébé Eva baa xam nga kontaan naa ci yow moo jongu ma na xaw a bànnal ne man sama doom dalaa bëgg xanaa xamoon da ngeen nuroo na bëggante gi moom maam Thierno Birahim Mbacké daa man gën kontante leen waaw kontante leen Kazu Radio mën na lu ne billaay kontaan naa sama doom ji yàlla na la yàlla defal jàmm la ngay wax kàddu yi mu la sànni. Ah, man moom franchement maam dama ko bëgg rek te yàlla rek a tax moom aussi pareillement nit ku baax la lu ma def day apprécier fu mu lu mu gis ci man rek day apprécier génn wax loolu moo tax ma bëgg ko mu tey mu bëgg ma ayca tubaarkàlla dañoo bëggante fi mu toll ànd gi yàgg na tubaarkàlla waaye day gën a sax yow ba pare nga tubaarkàlla boo marié wér tuddoo ko doom kii buy xew man maa koy xewal kii jaxabal joxuma cër de man maa xëcc cër bi ci man kii buy xew barke Alaaji Fàllu Mbàkke maa koy xew parce xam nga lii mu def yombul ndax ñi ma yëgal bëri na waaye moom lii mu def tey ñëw heure bii yombul sama doom ji ma wutal la foo toog naan du ma la dox foo xamal tax parce que yow boo xewlee ñëpp ñëw sa mbaax a tax pee ci ñun xam nga woo woon tubaarikàlla macha allah ñun dañuy waaye sëñ Fallou daam jeng leeral TV bëgg sëñ Fallou ñoo bëri Sow mu ne si saam da ngaa bëgg sëñ Fall demal tam nekk dëgg si ñun kon donc Mame Ndiaye Sow ñun Touba nañ de Touba nañ jóge ko ma waxee daf may dégg ndeysaan télé bi yàlla na doon télé télé télé télé télé ba ñëpp di ko dégg ba xam nga ne si saaram dañuy def spécial boo xam ne biir kër ga yàlla defal ko gudd fan ak wér gu yaram ndax loo doo mat a ñaan ndax bu amee rek ñun ay gaynde lañ ay liggéeykat lañ mooy eh, ndaw Samba li neex ba noppi eh dagg wàcc lan tubaarkàlla dagg wàcc tubaarkàlla eh bu ko defee nu waajal timis bi rek. incha allah googu ni ngi lay siyaar. moom mooy gone ak Thiès gi ñu koy wax nag euh, Mamy Cobra mu ne bu yëngoo réew mi yëngu lu mu def mu neex moo moo Hamza Hamza moom foog nga laaj ko ndax man damaa mujjee dag la dag la ma waxoon ci Hamza du ko sama paas ndax ma rey donc Mamy Cobra ñu lay nuyu. maa ngi lay fay yaa ngi ci jàmm. ci loo ne. ngi nii rek baa ragaloo teen. déedéet du ma ko ragal <laughs> ay ca tey lan moo waral nag sa ba sa lépp dama ko sekk ak gor sekk ko ku baax sekk ko ku ma bëgg loolu macha allah tarkalla moo tax ma tey ma bàyyi lépp ñëw ndax dëgg yàlla lii moom moo ko njëkkee tey damaa fay si rek damaa jéem a fay si waaye mënu maa sax fay. nga boole ko teraanga gu bëri nag teraanga gi nga jox maam Ndiaye mu mel ni seen diggante yéen li ñu ciy wax dara yàlla tere te dara du ci musa ne suñ Fall moo ñu boole rus nañ sax di wax kenn duñu dégg rus nañ ko te incha ba man day wax dëgg yàlla ba keroog may sànga suuf duñu ma dégg ak fi ma ko jàpp ni moom léegi ak maam ba kañ ba tey tey ba fajar la waaw ba fajar maa ngi fi moo ah. pare dama yëkkati baa bi dukkat ba neex waaw lan nga sa diggante ak Amza nag loolu moom dama ci bàyyi Amza maa ak maam maa ak Amza dañuy sëy am doomu jigéen ma tuddee la ko <laughs> ma tuddee si saaram ma tuddee si saaram laa ko tuddee ay xam fi mu toll nii ban wax nga bëgg a créer ci 2024. 2024 BG xam nga jaar na BG. waaw ak ban ma semence. déedéet dinaa beneen bàyyi la suñu toll dañoo ne ci màggal gi damay ma kunta mooy sagal. sëñ Fallou ñu bëgg. wuy sëñ Fallou. sëñ Fallou ay ca tubaarkàlla moo baax moo gën a yéen comprendre ma. ndara yi dem théâtre kat yaa ngi nii rafet seet bi ñëw na seet bi ñëw na seet bi ñëw na seet bi ñëw na la seeni ñëw nan ami kool la ñu noonu jox sax ku fa ñëw ñëpp a ngi jox ma ba dee waaye fii kala ni fii ndax loolu moo nu war waaye dëgg la mbay ñaareel la léegi nii ci ginnaaw ñaareel la ah. tey ay naw leen maam yaay saboo dañoo ñëw wut si ko ci loolu ay jël tubaarikàlla macha allah ñu ne nga ko xamante nag artiste artiste comédienne la tubaarikàlla mu mën mbokk naw ko lool nag bari Seexul Xadim man dama wax lu ma gëmul yàlla bindeew ma ci wax lu ma gëmul dama ko naw lool ci mbaaxam ci jàmbaarteem ci bëgg sëriñ Fall loo sa digganteeg moom la tey jii ba yow mi yaa ngi waaj tamit genre guddi yi mel ni bu def ko yow waaw am nañ bëgg nañ ko te am nañ yéene a tamit te ñaan nañ ko yàlla ci barke sëriñ Fall ndax avant may ñëw fii tey sama kër dama faa wàcc ma mu mel ni zéro mais lu mel nii ñaan nañ suñu borom doole bañ mën di ko def ndax lu baax ku ko gis da nga ko war a roy te lii lu baax Yirima tubaarkàlla soo gisee ki ma jàkkaarloo kenn dootu ko présenté mu nekk famille sénégalaise di ko lëmbe di ko doon tubaarkàlla waaye jamono ji nag <laughs> nouveau marié la tubaarkàlla ci loo ne maa ngi lay fay suma chéri maa yaa ngi am jàmm maa ngi sant xam nga ni tubaarkàlla da ngaa gën a jongo waaw tubaarkàlla dama am borom kër gën a jongo tubaarkàlla bu ñu xool sa waaw Mame Ndiaye naa ko comme ni ma xamee ñëpp mu nekk taal bi sëñ Fall bu baax ma xam ko mu fànn bu mu yàgg lool tey jii mu magam Ami Collé nekk invité d'honneur xarit bu baax di def délégation bu ànd lay seetaan ba pare di critique li nga xamante ni moom ngay def ci théâtre naka leen sa soppa soppe ñoom li ma bëgg ma bëgg leen tubaarikàlla ma leen di ñaanal yàlla dafa leen jàmm ci ba ci sëñ Fall kontaan nañ sénégalais Mame Ndiaye nekk sénégalais nekk ku baax ku yëgoog àdduna ñëpp Mame Ndiaye xeebul ndaw xeebul mag ñëpp la bëgg palaasam dina la tette dina kaf ak dina réew ak ay nitu démbam lañu waaye rëccuwul ci dara ku baax la ku bëgg nit ku bëgg sëñ Fallou lii mu def como munu ko ku baadoolo munu ko kuy defar maam Ndiaye yàlla bu ko fayee xolam day dem. ak kàlla macha naa la bisu maam Ndiaye savon bi ay moom kenn dina jong mu tubaar kàlla balaa kenn du ko ñemee xamal kenn du ko ñemee ñi ma bëri waaye da ngeen a civilisé set tubaar waa Pikine a ngi def seen i def tagal def weer def la paix ah borom bi si tubaar waa Bargny waa Bargny géej tubaar kàlla di leen defar Mame Ndiaye Savon waaye boo xoolee tubaar kàlla xam ne góor ñi kenn du ñoom. ñaanal ko papam ñaanal ko macha allah mu baax nag gën nekk nit ku baax. lan nga gis. ah kon ñu sàppali njar ne ah ma ne kon ñu sàppali njar ah nañ ko sàppali rek yee waay ndaw Samba ay ca tubaarkàlla macha allah umu gawla nag tubaarkàlla ñu koy nuyu la grande voyante tey mu ñëwoon ak teewal Mame Ndiaye Savon umu ñu ngi lay fay la ñaanal jàmm la a la moo war a sa teewaay ci bis bi waa parce que maam dafa baax nangoo liggéey am jom ba pare gore du fàtte ay nitam parce que man ak moom yàgguñu xamante bi muy soog a am benn place am bi mais ni ma jàppee woon ba tey noonu la ma jàppee moo tax tey ma teewal ko ci bisam bi waaw. mais tey jii boo amoon loo koy di ko ñaax ci programme lan lay doon. ah boo amoon loo koy gën a ñaax ci programme lan lay doon. lépp lu mu mën ren bu déwénee dina ko mën lépp lu mu mën ren parce que Cheikh Al bu déwénee dina ko mën parce que lii bisum Serigne Sa Aliou la te maam du fàtte dara lépp lu ma ko musoon a wax. sa yu taalee ma ñëw place am wax ko. yaayam ji ma dendal baax lool ku ne lool oyof nu maa ngi koy wax Ndeye Ndiaye léegi ma ne ko yaay maam Ndiaye nitu kese la maam Ndiaye dafa baax su noon kenn du ko wuy si man li tax ma ko man moo ko ci te jàpp naa ko te dootuma ko bàyyi parce que xale bu am jom la xale bu baax la maam Ndiaye tax na xale yëpp takk seen dëgg di liggéey am na jom nangu naa liggéey bëgg na ay nawleem mën naa wax ci lu baax ci doomu aadama franchement par te kontaan nañ ci bu baax a baax